invité de la rédaction mbokki internet yi seetaan Sunugal 24 ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax Euh, comme ni ñu koy defee saa su nekk di dalal ñenn ñoo xam ne si nii ci la ñuy yëngu moo xam euh, lu ca mën ci doon ñu daal leen di dalal euh, seq ak ñoom waxtaan tey nag ñu am plaisir dalal Abdoulaye Barry mu bokk ci parti PDS bokk ci cellule de communication bi nga xamante ni mooy boobu les parti waaye tamit nekk cadre ci yooyu les libéraux mag ngi lay nuyu bu baax Abdoulaye ma bàyyi la nga daal di nuyoo ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy seetaan. Euh, asalaamaaleykum euh, maa ngi nuyu mbokku internet yi. Sunugal 24 plutôt di nuyu mbokku sénégalais yi nekk si réew mi ak bitim réew. Mhm. mais di jiital nuyoo bi aussi suñu président secrétaire général euh, général national le président Abdoulaye Wade. Mhm. di ko ñaanal gudd fan. et di nuyu aussi de passage suñu candidat muy Karim Meïssa Wade di nuyu le tous les responsables du parti démocratique sénégalais et particulièrement la sœur Nafissatou Diallo. Mhm. et aussi di la. jaajëfal bu baax si dalal bi ma dalal euh, Mahfous. Mhm. ak mi ngi noonu ñu daal di jàll ci waxtaan bi doore ko ak li nga xamante ni euh, xew na démb euh, RFI daal di génn benn information boo xam ne si nii daal dinay tàggee ku si mel ne Abdoulaye Wade waaye tamit Abdou Diouf mu mel ne que ni nekk jur xaw jur coow laataa ñuy def li nga xamante moom mooy déwante bi daal di présenté seen excuse yow nga bokk ci parti PDS nga nekk ci koo xam ne si nii yaa ngi ca biir bu ngeen déggee information boobu nag ngeen ko dundee. waaw euh, je pense que Mahfouz comme ni nga ko waxee rek mu nekk lu ñu naqarul trop mu metti ñu trop je pense que tey su fekkoon organe euh, organe bi interne la boo xam ne mu ngi si biir réew mi su ko defoon yaakaar naa li koy dal si kawam ñëpp xam nañ ko. Mhm. maanaam peut-être mun na am sax dem ba organe bi disparaître wala ñu tëj ko si biir réew mi mais li gën a doy su fekkee ce sont des presses occidentaux. Mhm. lu mel ni RFI mi nga xam ni jumtukaayu nasaraan yi la. Mhm. ñoom ñoo ko yor tey nga xool lu si li si gën a garaaw jàngat bi ma si gën a def. Mhm. mooy ñi ñuy tàgge ñëpp ce sont des présidents africains. Mhm. mooy des des hommes d' état lañu doon tàggee. Mhm. mais ñoom si seen erreur gisoo ñu tàggee benn homme bi nga xam ni français la comme ku mel ni Jacques Chirac wala Sarkozy wala keneen a keneen. mais pourquoi ñu ciblé. Euh, les les les hommes africains ça veut dire que day suscite beaucoup d'interrogations parce que am na ñuy wax ni carrément euh, si wàllum boobu noonu soo xoolee lu mën a RFI dañu bëgg di anticiper ay mbir yoo xam ne ñëwagul mhm. maanaam su fekkee tey dafa am kilifa yu toll noonu suñu génnee àdduna dañuy bëgg am seen archive yëpp à la fois mhm. à la minute qui ñu mun a def benn documentation pour wan ne ñoom ils sont déjà ñoom ñoo njëkk détenir les informations tey mën nañu jël aspect boobu noonu mais li may gën a déplorer mooy carrément que mutisme bi nga xam ni ñu ngi koy gis ci suñu état yi ça veut dire que dafa mën dañu am état bu faible mhm. au niveau des occidentaux parce que tey lii nii le je pense que waroon nañu mën a convoquer même su dul ambassade France bi sax ñu gën ko mettre euh, mhm. les accents sur les ñu addu jëme ci gën mhm. ñu xool ko parce que dafa je pense que c'est trop léger ñuy bàyyi yenn information yi suñu réew lañ nekk ñu leen di tàggate deewaguñu je pense que baax a dañ ko doon ubbee rek parce que benn parenthèse la euh, mu xewoon fii démb ñu bëggoon ci xam euh, seen réaction ak bi loolu amee naka ngeen ko dundee ñu daal di ñëw ci li nga xamante ni euh, moom moo di gouvernement bu bees bi nga xamante ni Macky Sall daal di na koy teg ñu gis ci ay ñoo xam ne si nii ñu bees lañ ñu nekkoon ci yéen ku ci mel ne Omar Sarr waaye tamit fële ca CSE donc gis nañ fa ki nga xamante ni moom moo di Idrissa Seck donc PDS gis ñu ci kenn koo xam ne si nii bokk na ci gouvernement bi ndax dañu mën mën nañ jàpp ne dañ leen a consulté wul wala lan moo xew. waaw euh, Mahfouz foofu euh, tout d' abord da nga may may euh, ma félicite de passage suñu secrétaire général national le président Abdoulaye Wade parce que wane na une fois de plus que moom li ko soxal ak li ko intéressé. Mhm. mooy coono askan wi solo askan wi moo ko tax a jóg. parce que li ñu génne communiqué bi ñu génne démontré na ne carrément que ñun suñu ligne de conduite mosuñu ko wàcc. ndax bu leen fàtte depuis bu ñu perte pouvoir bi en 2012 mu am beneen alternance alternance au Sénégal mhm. ñun on a resté dans l'opposition toog opposé wu parce que dans un pays de doute bi nga xam ne c'est un pays démocratique mhm. dafa am ñaari aspect yoo xam ne moom moo war a mën a nekk mooy benn majorité boo xam ne moom moo war a gouverner am benn minorité boo xam ne moo war a opposé wu je pense que ñun on a choisi de s'opposer avec le régime en place mhm. bi ñu ko defee nag gis nañ si ay yu coono yu ñu si wàllum opposition amul benn parti politique a tenir mais n'empêche pas que ñun à chaque fois on est plus redoutable parce que tey damay wax rek mooy euh, benn anam damay gërëm le président Macky Sall si fànn boobu. Mhm. parce que lu tax ma koy gërëm mooy su fekkee dama yor benn saaku pommitère bi nga xam ni dafa am ay pommitère yu nëb yu nekk si biir. Mhm. su yàqee su yàggee dina yàq yeneen pommitère yoo xam ne dafa baaxoon. Mhm. moom nag dindi na saak bi xool pommitère yi bon yi mu dindi ko yóbbu ko si côté yaakaar naa loolu plaisir la si ñun. Euh, mbégte la ñi nga xam ne ñun ay ndaw lañ. Euh, nekk ay surtout président Abdoulaye Wade. Euh, ñëw pour préserver patrimoine bi nga xam ni mhm. PDS nekkul li nga ñun ñoo ko moom mais patrimoine national la loo xam ne dañ ko war a sauvegarder mhm. parce que dafa defar réew mi liggéey réew mi muy bi ñu nekkee opposition pendant vingt ans def ay acquis démocratiques sur le plan de la démocratie indi ay mhm. avancement très significatif ba tey ñu mun a am alternative kii alternance en 2000 amaat alternance en tey yooyu yëpp soo gisee fànn yooyu sa démontre une fois de plus responsabilité bi pesé suñuy fardeau mhm. mooy le PDS nekkul parti bi nga xam ni comme parti yi ndaw yi nga xam ñoom pouvoir moo leen mhm. ñëw ñu ànd ak yow je pense que ñun dépassé nañ loolu ñu dañu am benn parti boo xam ni dafa nekk un parti démocrate suñu ñàkkee ay élection ki yàlla fal ñu bàyyi ko mu exercer librement mhm. euh, euh, mandat am ñun tamit ñu loo xam ne constitution moo ñu ko garantir ñu war a wu ñu opposé wu à lui avec des idées yi nga xam ne si dans l'intérêt du Sénégal mais pour ñëw fi nga bëgg a wax mooy que gouvernement bi nii c'est une gouvernement d'honte honte la hmm. parce que nu tax mu nekk honte yaakaar naa suñu nekkee réew mi nga xam ni dañoo ñëw am lu dal suñu kaw dal si àdduna bi muy mbas mi fi jàll muy Covid 19 bu ñu toogee noonu ñu xool gis ni que carrément que pays bi métti na avant boobu noonu sénégalais ñu ngi doon souffrir hmm. tey nga xool wàllum liggéey bi maanaam euh, emploi emploi nga xool gis ni que euh, maanaam ndëgg sërëx bi si nekk ak manquement bi si nekk Covid bi daal seen kaw nga xool secteur informel bi tey Sénégal ñun ñëpp xam nañ ni góorgóorlu bi moo fi am mhm. maire bi jaay caaf kii jaay café Touba borom clando bi borom njaga njaay bi borom car rapide bi ak ñeneen ak ñeneen dañuy taaba taaba daw dépense tey mhm. wala nga génn sa kër daw wuti dépense envoyé ko si yeneen euh, kii yi transfert d'argent yi pour mën a joxe dépense biir kër. Mm-hmm. mais ñooñu ñooñu tey suñu toogee. Mm-hmm. nekk si benn anam bu. Abdoulaye Abdoulaye dëgguma la sax mais su ma la déggee dafa mel ni yow ànduloo ci gouvernement bi nga xamante ni Macky Sall teg na ko fii après euh, mu ngi mën a tuddee un gouvernement post euh, post Covid. non lii mënuñu ko jàppee un gouvernement post post Covid li ñu koy jàppee mooy un gouvernement bi nga xam ni euh, séddoo bukki la. ndax tey ont la par rapport ak ñoom ñi nga xam ne tey ñoom ñoo sëkk gouvernement boobu noonu tey suñu xoolee réew mi nga xam ne mooy ni ma ko doon wax sànq si samay kàddu si sama démarche mooy dañu nekk jóge si mbas mu metti ñu war a am une relance économique am beneen vision pour que économie bi mën a bañ a naxasaay hmm. ñu mun ko maintenir bi nga xam ne développement bi ñu yaakaar ci Sénégal ñu mun ko fa téye niveau boobu noonu mais tey li ñu gis mooy euh, séddoo la ñu gis parce que tey lii mënoo ko tudd lu gouvernement pàccoo ndax tey soo xoolee Euh, su ma ñëwee ci CSE tey euh, soo xoolee tey institution Sénégal euh, question bi ma lay posé ñaata institution ñoo am Sénégal ñeenti institution la. muy le président de la République. président de l'Assemblée nationale. HCCT ak CSE conseil économique et environnemental kan mooy le président de la République le président Macky Sall kan mooy président Assemblée nationale Moustapha Niass kan mooy kii HCCT. Aminata Mbengue Ndiaye kan mooy CSE Idrissa Seck. voici le Sénégal bi ñuy toll actuellement mooy que. kaay la ñu séddoo kenn ku nekk mu jox la cër bi nga moom alors que pendant ce temps là sénégalais ñi ngi toog ñii di mbëkk gaal gi di wax Barça Barsaq tey ñi nga xam ne tey carrément que ñi ngi toog. di agressé parce que amuñu lu ñu mën a yóbbu seen biir kër tey ñi ngi gis beneen crise boo xam ne carrément c'est une crise économique boo xam ne moom moo am si askan wi askan wi ñi dem si mbëkk di gaar gi ba dafa nekk crise économique avant mu nekk crise bi nga xam ni waaw mais crise boobu dogu na la mais crise boobu crise boobu ci yéen ñëwee euh, waaw nga baal ma àggale rek cest à pour te pour mm. tey dañu nekk gouvernement boo xam ni pàccoo la lu ma ni CSE une budget de 7 milliards mm-hmm. je vois pas lan la Idrissa Seck mën a apporter foofu noonu sur le plan du développement wu Sénégal mm-hmm. Idrissa Seck da ngeen fàtte ni nekkoon na gouvernement Macky Sall moom moo njëkk génn en plus li gën a grave par rapport ak nomination bi mm-hmm. bu leen fàtte si programme Idrissa Seck en 2019 moom moo taxaw bind si programme noir sur blanc que su jour bu ma jotee réewu Sénégal su la ma ko dénkee dinaa supprimer HTC dinaa supprimer CSE. mais tey Macky Sall war na ni clairement kii du nitu dëgg du nitu kàddu. parce que tey doo ko déshonoré déshonoré boobu noonu mooy li mu doon xeex démb foofu la ko nommé te mu accepté ko. te deal mu nekk benn deal bi nga xam ne moom moo existé ndax moom si boppam en personne. da nga jàpp ne deal dafa am. si parce que xam nga. lan mooy deal lan mooy deal deal mooy nit ki nga xam ni même maanaam. respecté woo sax ñi nga àndal. ndax le président Idrissa Seck su fekkoon respecté na waa réew mi militant bi ak responsable bi. dina leen mën a consulter parce que tey am na ñoo xam ni kenn consulté wu leen parce que nee na pendant mois mi ngi déggoo di diisoo ak Macky Sall en privé. Mhm. alors que je pense que tey su fekkee dañoo euh, war a euh, yor réew. je mhm. pense que réew. kenn du ko séddoo dañ koy dañ koy dañ koy waxtaanee kenn ko pàccoo mais dañ koy waxtaanee mhm. diisoo ko. Mhm. te fi ñu ko war a waxtaanee je pense que assemblée nationale dañ dara du ëpp ko crédibilité ci Sénégal pour ñu waxtaanee askan wi. Mhm. mais tey li ñu gis mooy que ay ñaari responsable nekk seen deal kii génn élection deuxième. am benn mutisme yéeyul yàbbiwul kenn xamul lan mooy position am mhm. à notre grande surprise ñu jox ko benn institution si biir réew mi mu exercer ko nekk pour des intérêts ñëpp la ñoom ñëpp même cadre la ñu am pour des économies euh, pour des intérêts euh, politiques kii nii euh, général pour des kii ça veut dire que dañoo dem ba nga xam ne carrément xa wéeguñu sax askan wi mhm. parce que dañu jàpp ne askan wi amuñu benn considération bu ñu leen war te alors que politique mhm. du loolu ça veut dire que tey dañoo nekk li nga xam ne tey dañoo opter pour def politique pour avancer suñu réew ba tey li bitim réew am xale yi di mbëkk gaal gi dem ñun ñooñu xam ne xale yi dañuy toog si réew mi am am am plaisir que ni Sénégal c'est un pays bi nga xam ni teraanga mi ngi fi développement mi ngi fi lépp mi ngi fi et je pense que tey foofu lañ doon foofu lañ leen xaare beneen bi muy le cadre Omar Sarr mm. ñun le parti démocratique sénégalais amaat nañ dëgg parce que wax nañ ko dès le début bi dialogue bi amee dañ ne leen lii du dialogue lii ay mbiru mbiru caaxaan la mm-hmm. ndax su fekkee dialogue la dafa am ay yi nga xam ni dañ ko définiroon depuis 2016 la ñu waxoon bind le président Abdoulaye Wade bind livre blanc génn ay ponk wax ci carrément que condition yi nii élection bu ñu mënta dem ak président Macky Sall ñuy gagné. Mhm. ñu proposer ay bulletins uniques proposer audit du fichier proposer ouverture pour de inscrire waat nit ñi mooy les primo votants ak ñeneen ak ñeneen mais amul lenn li nga xam ni le président Macky Sall accepté na ko. Mhm. mais c'était pour recadrer jëlaat opposition bi ñi nga xam ni xam na leen bu baax a baax ni gëmuñu dara mu bàyyi leen opposition bi ñu nekk di espionner opposition bi parce que tey soo xool le le for euh, euh, FRNN mooy suñu front euh, kii résistance nationale bi. Mm-hmm. mais soo xoolee tey front ñun ñoo ko sekkoon. mais forom ñu ko sekkoon ñëpp tey le président Macky Sall moom moo leen téye ce qui montre une fois de plus bi ñu nekkee ci forom bi. mais est-ce que du réew mi moo toll foofu tey ñoom ñu ñu ñu gis ne que euh, war nañu boole euh, ànd boole seen ay doole pour nga xam ne si ni réew mi fu mu toll euh, post Covid bi économie bi nërmeelu na lu bëree bëri daanaka dañ ci war a taxawaat pour mu jóg est-ce que du ma jàppaloo ni tey dañu war a ranger la hache de guerre ñu teg ko ñu ñu ñu ñu enterré ko te jublu ci li nga xamante ni tey moom mooy moom mooy suqali réew mi. gis nga dama benn mbir. soxlawuñu Idrissa Seck si biir gouvernement bi ak ay Omar Sarr pour doxal réew. ah non non non gisuma intérêt bu ñu mën a apporter Sénégal si cadre développement Sénégal nous sommes 16 millions d' habitants. mais Idrissa Seck ngay wax ah, que Idrissa Seck bu fekkente moom mm. démontre waaw wane na parce que Idrissa Seck si taxawaayam. Mm. li mu doon gëmloo si cadre économique. lim ñu doon gëm gëmloo si éthique ak déontologie doomu aadama lim ñu doon gëmloo si nit ñi nga war a mal ak moom démarche am dafa wute saa veut dire que foofu la ñu toll ak ñoom nekkuñu Sénégal bi nga xam ne dañuy jéem a dox si bopp nit ñi pour mën am li ñu bëgg-bëgg Idrissa Seck intérêt boppam moo ko animé fois de plus il faut nit ñi xam ko mhm. intérêt personnel moo ko animé beneen bi am solo mooy le cadre Omar bi nga xam ne ñoom dañoo dem si dialogue dialogue bi nga xam ne amul benn intérêt pour Sénégal alors que dañ fa doon dem pour juste uniquement trouver benn porte de sortie pour rejoindre le président Macky Sall beneen bi gën a man par rapport si samay bët mooy la nomination de Antoine parce que foofu à chaque fois il faut que ma ne Antoine Diome man il faut que sénégalais di si taxaw parce que il faut que nga xam qui est l'homme kan mooy Antoine ba pare. lan mooy problème lan mooy problème bi foofu noonu ci Antoine Diome. xam nga mooy problème Antoine Diome si ministère l'intérieur. ñun dañ si nekk à l'aise pour ñu wax si. ndax naa su ñun la meññee. ci parti démocratique sénégalais si kaw Karim Wade la ñu xam kan mooy Antoine Diome. ndax tey bu leen fàtte ni que Karim bi ñu ko yóbbee euh, fene euh, gendarmerie section de recherche. Antoine en personne muy doog a génn magistrature moom la moom moo dem gis le président Macky Sall proposé ko CREI pour que ne ko carrément suñu utiliser CREI mun na ñu daaneel kii nga soxla. bi ñu demee enquête bi ñu doon def au niveau euh, de de caserne Samba Diéry Diallo mais tous les questions ñu doon yi yi kii bi euh, gendarme doon posé mais Antoine moo ko doon écrit di ko soumettre euh, kii bi gendarme bi ñu jóge foofu noonu tey ñu ko woon nommer directement procureur euh, spécial auprès de la CREI ñu jël Alioune teg ko fa pour juste rek def benn mm, mascarade pour que après ñu xalal ko yoon. mais la mm. preuve en est que en pleine audience bi ah, bi ah, Alioune Ndao ban jeu moo nekk si biir la jot SMS bi wan ni ko carrément que dàq nañ la jógal fi nga nekk en d' administration ban. administration crédible ngay gis nga un responsable au niveau de l' administration ñu koy dàq par un SMS ça n' pas nga xool ñu nommé ko moom mu remplacer Aliou Ndao bi mu remplacer Aliou Ndao nan la def proposer le juge en kii euh, euh, Grégoire Diop daanal Karim Wade sept ans tëj ko sept ans soo ko tëjee sept ans ba pare. que am nga ay preuves. yu tangible laa lay wax nii rek. ay non yu tangible ay preuves laa lay wax tangible parce que du début à la fin dañ procès Karim Wade mais amul lenn loo xam ne si nga si ay wax kese la mais je te des faits indil naa la euh, bi ñu nekkee gendarmerie indil naa la li nga xam ne koy lu loo xam ne Sénégal yëpp gis nañ ko Aliou Ndao dàq nañ ko wala dàq ñu ko est-ce que Henri kii euh, Antoine remplacé na Aliou Ndao wala remplacé wu Aliou Ndao. parce xaar xaar moom la bu bu ñu jógee foofu noonu dafa am loo xam ne dañ ko proposé dañ ko dañ ko benn bataaxal adressé ko au cour suprême. Mm. Antoine mii def fii nii dañ ko bëgg ñu dindi ko face pure place am bi ñu ko waxee ñun surprise bi ñu gën a am mooy que dañ ko gën a yéegal daraja def ko agent judiciaire de l'État. Mm. moom moo daan Khalifa Sall bi mu jógee si Khalifa après agent judiciaire bi la léegi moom lañu ko gën a sut kaw. ñu def loolu ay rappel la mais ñi ñëw ci ay fait la yoo mhm. xam si nii peut-être am na foo bëgg a foo bëgg a ngi au niveau euh, du ministère euh, de l'intérieur bi foofu noonu da ngeen tiit da ngeen tiit wala lan la waaw parce que Macky mi ngi si ay lobbyam ak ay ak ay ay ay euh, ndëg sërëxam pareegul mhm. parce que tey ñëpp xam nañu Antoine element wu Macky la ndax Marème fay Sall frère am ak Marème Faye Sall ay xarit lañ. tey liaison bu mu am foofu la ko amee fa la tiisee relation yi noonu xam nga ñun on comment fonctionne l'État ak ñii nan la doxalee seen réew. raison pour laquelle ñun tey ñu tiit parce oppression bi ñuy xaar si moom. muy mm-hmm. fi ñuy jëm muy gën a métti ak moom. parce am na loo ma xam si ni Karim Wade jot na koo ñam. c'est pas question que Karim xam na. mais tey ñeneen ak ah. ñeneen si opposition mën na ñam. ñun mën nañ Sonko mun na ñamaat Khalifa Sall mën na ñamaat keneen ak keneen képp koo xam ne d'accord wala bëggoo rejoindre le président Macky Sall. mun mhm. nga attendre à tout. foofu lañu foofu la ñuy alerter les sénégalais. que nit seen bët xool. d' accord l' ju daal di gën a xoos ci li nga xamante ni moom mooy waxtaan bi ma fàttali que ni Abdoulaye Bari euh, tey moom la ñu àndal ci invité de la rédaction moom nag mu bokk ci cadre des libéraux euh, donc nekk également euh, membre de la cellule de communication bu PDS donc alors Abdoulaye ñu ñu ñu gën a xoos est ce que mën ñu xaar ci ngi dégg ay alliance ci parti yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci opposition ay alliance yoo xam ne si nii dañuy dañuy boole doole yi pour liggéey euh, mën a mën a dem mën nañu xaaran di ki nga si moom mooy PDS mu daal di am alliance ak ku ci mel ne Pastef yàgg nañu di ŋawti ŋawtee wala di ko ngunum ngunumee li nga xamante ni moom mooy alliance boobu par euh, PDS Pastef waaw euh, par rapport ak alliance yi je pense que parti démocratique sénégalais ñun dañoo mës a wu te nekk parti bu mag bi nga xam ni Euh, je pense que jarul sax ñu koy rappeler parce que depuis 1974 ki nga xam ni def na existence de 46 ans si appareil yaakaar naa amul kenn koo xam ne dañ lay euh, envier par rapport ak ñu expérience bi ñuy détenir mm. que élection yi ju junjoon nañ ko ne ko carrément que municipalité yi ñu jëm képp ki nga xam ni euh, bëgg nga de PDS ñun tijji nañ la suñuy bunt pour nga ñëw ñu ànd liggéey as liggéeyal askan wi tey le PDS nekkul ay mouvement le PDS nekkul parti buy soog a juddu dafa nekk parti boo xam ne bokk na première parti yi nga xam ne dafa am Afrique de l'Ouest tey képp koo xam ni mooy suñu communiqué bu bees bi ñu génne nit ñëpp ñëw ñu fédéré suñ ñëpp ñi nga xam dañoo jàpp ni dañu war a opposé wu muy société civile muy les politiciens muy organisme képp ku mënta doon jàpp nga ni carrément war nañ mën a doxal Sénégal ñu ngi lay tendre la main nga ñëw rejoindre le Parti démocratique sénégalais. Mhm. pour ñu def une coalition forte pour mën a jàkkaarloog président Macky Sall. ñun loolu def nañ ko appel te génn nañ communiqué bi démontré def nañ appel boobu noonu par rapport ak les autres alliances mun nañu bokk conception mën nañu bokk vision pour def seen coalition. loolu comme ni ñuy wax en démocratie. mais tey dàq nga dàq nga PDS dem rejoindre ko ci mel ne euh, par parti Pastef euh, pour ñu boole seen doole dem ci li nga xam ne mooy local yi wala wala 2024. PDS dem rejoindre kenn. loolu laa lay wax le parti démocratique sénégalais. nekkul alliance boobu alliance boobu doo amoo. non waxuma exclure en politique il faut jamais dire jamais. Mm-hmm. mais le problème en est que parti mais kenn du ko tànn la mais mais Abdoulaye yaa ngi fi wax naan parti parti démocratique sénégalais euh, donc parti bu mag la parti boo xam ne si nii daanaka euh, parti bu fi moo fi gën a yàgg bokk na ci parti yi fi gën a yàgg. Mhm. mais parti bi pratiquement amatul amatul euh, kenn nekkatu fi. non donc seen ki nga xamante ne nii moom moom ngeen di réclamer sax naan Karim Wade mooy suñu leader mooy suñu leader moom daanaka kenn xamul fan ma nga cee dawaa tëdd. Oh. jàpp njàmburam yéen ngeen nekk fii daanaka mooy loolu daal. waaw kenn xamul kenn xamul. kenn xamul PDS fay tey ban tànk la taxawee. ma fu je pense que tey soo ne ma PDS ku fi di la. Euh, xam naa xam da ngay bëgg sànni xar rek nekk Ablaye Wade ay ay atam mayatu ko Karim Wade ngeen yaakaar Karim Wade ma nga dowa kan moo fi nekk. non loolu laa lay wax xam nga tey yaakaar naa su ma invité sa plateau rek ça veut tout dire tey xam nga ni suñu fi génnee di xam ne le matière est fii ñi fi nekk yaakaar naa ñun ñëpp si njabootu Ablaye Wade dañ te li gën a yéeme. mooy ay surtout tey ñun le parti démocratique sénégalais bi ngay wax. Euh, bi bi nga xam ni am na opposé wu na pendant vingt six ans exercé douze ans opposé waat pendant six ans nga cumulé ko ce qui fait quarante six ans. presque un demi siècle. Mmh. ku képp képp koo xam ne am nga ko si kaw suuf yaakaar naa amul benn expérience bi nga xam ne war nañ la ko mën a yokk tey le parti démocratique sénégalais bi ngay wax kan moo fa génn ki nga xam ni euh, indi na benn euh, lu nan laa la ko mën a waxee sax benn yëg-yëg bi nga xam ne parti bi mu ngi ko yëg amul ndax képp kuy dem. sa bopp nga yóbbu mais doo yóbbu ay militants ñun dañoo am appareil sur les 45 départements fépp foo dem di nga fa fekk responsable parti démocratique sénégalais. Mm. sur les 557 communes fépp foo dem di nga fa fekk responsable PDS muy femme muy jeune muy secrétaire général lépp la ñu am ça veut dire que appareil la am te je pense que tey appareil boobu ñu am moo tax le président Macky Sall. taxaw ne man benn oppose benn opposant laa am muy le parti démocratique sénégalais moo tax lim ñu yan képp ku mu ko yanoon tey sa parti suul nañ ko. mais man jamono bi euh, Pastef moo fi nekk benn parti boo xam ne si ni tey moom moo opposé wu xam nga tey. Euh, leen lu leen di gis léegi ci ci yenn yenn combat yi. waaw nit euh, rek lañ fi gis muy Ousmane Sonko. Mm. moom moo fi nekk sur le terrain di di jouer rôle ni tey jàpp ne kii tey mi mu ngi wu. xam nga Ousmane Sonko Pastef dañ leen di jox seen cër ndax dañoo bokk kujje gi ñu taxaw itam di def seen rôle kujje

Ousmane Sonko était dans l'administration nekk impôt et domaine gis ñu woon kenn manifestation yi ñu organisé yëpp le PDS moom mooy mobilisé maanaam bi nga. Euh, maanaam humaine bi nga gis. d'accord d'accord ma daanaka maanaam humaine bi nga gis. temps bi daf ñuy xooj waaw non damay daan foofu rek. maanaam humaine bi nga doon gis. c'était le parti démocratique sénégalais moom moo doon def maanaam humaine boobu noonu am tey l'affaire ArcelorMittal. bi ñu koy posé sur l'espace public. c'est le président Abdoulaye Wade moom moo taxaw place de l'Obélisque. Mm-hmm. ne tey état du Sénégal le président Macky Sall par rapport à l'ArcelorMittal ñàkkloo na Sénégal deux cent vingt milliards. Mm-hmm. parce que affaire boobu noonu on avait gagné le procès à deux cent cinquante milliards le président Macky Sall accepté. 80 milliards yi nga xam ne tey carrément que xamuñu seen condition la ko accepté. tey loo xam ne ñu mu ñu ko exposé le cas noonu kaw pétrole bi ñun ñu ko ñu ko soulevé. Mhm. mais lépp après Ousmane Sonko. il a fait que mais pétrole moom laal ngeen ci. non daanaka a ko signé woon. xam nga fi nga signé nga contrat. parce que tey euh, dañu nekk dans un pays sous-développé. Mhm. muy le Sénégal. Mhm. amuñu doole trop trop pétrole moom laal ngeen. amuñu doole trop non laal ñu si pétrole amuñu doole trop trop. Mhm. tey su fekkee dafa am beneen ñeneen ñi nga xam dañoo ñëw nekk ay privé international ñëw ne carrément dañuy dañuy seet dañuy seet pétrole bi Sénégal pétrole boobu noonu xamuñu ndax am na wala amul parce que ñoom dañu am yaakaar rek mais si yaakaar boobu noonu suñu demee ñun ñu am ay contrat yoo xam ne war nañ ko mën a sëkk ak ñoom mais si kaw contrat yooyu noonu dañ dañu signé ay contrat mais si kaw signé contrat boobu noonu yàlla dimbali nañu si mbaaxam ba période bi ko war a euh, exécuter fekk ñu fi ndax je pense que euh, le ministre à l'époque muy Abdoul nga xam ne président Macky ñëw na mu fekk ko fi dañ ko carrément que président balaa ngay génne décret parce que le président Abdoulaye Wade génnewul woon décret buy permettre timis def liggéey boobu noonu mm. mais décret kii euh, attiré attention alors que moom il avait toutes les informations nekk def premier ministre nekk def ministre de l'intérieur mmh. nekk fi directeur Petrosen nekk mmh. président de l'Assemblée nationale il avait toutes les informations pour xam contrat bi baax na wala baaxul wala intérêt intérêt Sénégal mi si wala nekk bi ngeen signé woon ba xam baax na baaxul non xam du question que baaxul contrat dina am manquement manquement day am parce que mmh. àdduna moo partant de là li amoon solo ba am solo mooy que amul nañ yéene pour que pétrole bu nekk Sénégal ñu exploité ko ba Sénégalais gis seen bopp mais nag li ñu gis ak ñun li ñu bëggoon peut-être am na am na li nga xam ne ñu ngiwul moo tax nit ñi prêter attention pour wax ni ko carrément que na seetaat contrat bi foofu lañ tolloon. ak ak ñoom. d' accord euh, temps bi ñuy xocc euh, Abdallah xam naa dañuy ñëw ci point bi nga xamante ni euh, tey foofu la ñuy tëjee muy question Karim Wade Karim Wade mi ngeen ne moom moo jiite seen parti bi di PDS donc kenn gisu ko wax naa ko léegi te dafa mel ni nag moom moo moom mooy problème bi moom mooy problème bu PDS que ñi génne ñëpp dañu jàpp ne tey mën nañu jàpp ne moom moo leen génne. waaw si mel ne Omar Sarr wala ñeneen ñu bëri ñoo xam ne si ni tey Euh, mënuñu concevoir euh, benn leader boo xam ne si ni ma nga doowaat tëdd ñoom ñu nekk fii ci naaj bi. xam nga tubaab dafa wax ju am solo dafa ne qui veut tuer son chien l'accuse de rage. Mhm. yaakaar naa tey pour exister en politique pour que ñu wax la wala ñu tudd la. Mhm. wala le président Macky Sall bàyyi la xel parce que le président Macky Sall moo ne moom opposition ki muy opposé le PDS la. Mhm. tey mu xam potentiel candidat ki nga xam ne moom moo ko mën a remplacer mu le président Karim moo tax tey mu def si coono bi mu daj ñii tey soo moom taxawee ñoom ñu taxaw ñu ne carrément ñun. Euh, Karim Wade mënul gagner élection mënul def dara mais yaa xay ci nañ ko bàyyi mu ñëw compétir. ku ko téye kan moo téye ak Karim Wade. mais le président Macky Sall. moo téye Karim Wade kan moo lan moo tax mënul ñibbisi. mais lu tax mënul ñibbisi xam nga tey président euh, le président Karim Wade bi muy génn rëbës. Hmm. génnewul boppam bi muy dugg rëbës dugal fa boppam. ndax bu ñu ko génne moom dañ ko génnee mu dem mu ñibbi këram. non yow génnuñu ko këram. te xam naa loolu dama ne suñu la génnee prison. da war a ñibbi sa kër. Uh-huh. la mu wax ba dem dowaa. Uh-huh. moom moo ko xam wala yéen yéen a ko xam. waaw loolu laa bëgg nga ñëw ci lu tax mu administration. ban heure ba ban heure lay liggéey. ban administration. Sénégal mm-hmm. ban heure heure lay liggéey. Mm-hmm. plus tard ñëpp xam nañ 8 ban prisonnier ban ban administration mooy fonctionner une heure trente quelques heures du matin pour pour pour un détenu mais Karim pour libérer ko t'as pas besoin bàyyi ba xaaju guddi pour libérer ko Khalifa Sall bi muy génn ñëpp gis nañ ni dañ ko fa génn ja doomam jël si ko ak kàttaatam mu dox dem ñibbi nànk mais pour pourquoi Karim ñu jël euh, oto bi nga xam ni euh, directeur pénitentiaire bi jël des responsables jël ko def ko si benn cortège nëbb ko nit ñi couper ko internet euh, couper courant jël ko jaar na ko si conus bi yóbbu ko directement Kër Madické Niang gaare avion si aéroport pendant 48 heures. yóbbu ko si yóbbu ko. moo mu nangu ba dee bëgg a dem mais nguur mooy xeexal moom. yëpp mais su ko su fekkoon jaral su fekkoon ne tey ko. dañ ko rey meeru dem. mais bu fekkoon ne tey Sénégal gi bëgg Sénégal gi mu wax mi ngi ci Karim Wade day dañ may rey xam nga tey bëgg Sénégal bi nekk si moom. Ah. mais nag bu fekkente ne moom daa jàpp daa toog jàpp njàmbaram jël ko yóbbu. Mahfouz dama lay wax tamit dañu jàpp ne moom d'accord deal la bu muy comme ni ñu koy waxee. non xam nga deal boobu noonu nit ñi mun nañ ko tuddee noonu dil ak nu leen neex. mais dama ni la ñi xam lépp mosoo gis képp koo xam ni bokk nga si nguur gi taxaw ne président le président Karim Wade signé na grâce wala dara beneen bu ëpp solo boo xam dinaa ko soulever nit ñi comprendre. Mm. mooy ko grâce ban période la ñuy joxe grace fête national Euh, ay gracier ku ne non mën na gracier loolu day sàrlu mooy jël seet mais prérogative la ko waaw pour def ko a gracier ko loolu d'accord nañ d'accord nañ mais mënoo d'accord nit nga gracier ko à cette mm-hmm. guddi boobu noonu moo jaaxal ñëpp waaw d'accord mais beneen bi mooy euh, xam nga Karim mm. dafa nekk ki nga xam ni ñëpp dañoo xam ay ambition au mm. Sénégal mu nekk quelqu'un bi nga xam ni tey gis nañu bi mu nekkee prison pendant ces trois ans là. amul benn détenu à part Mamadou Dia bu suivre li Karim Wade suivre si biir Sénégal trois ans et demi la def biir prison. kenn mus ko dégg mu yuuxu wala mu demander qui quoi que ce soit. des personnalités yu ko mujjee seeti ñoo xam ñu crédible lañ. taxaw nañ ne carrément man seeti naa ko prison. signé wul accepté wul li ñu ko defal. fekk ko biir prison defal ko passeport bu koy génne mais Karim dafa am kilifa kilifa boobu noonu yàlla yàlla na yàlla yokk leen tax ñu soo xoolee si pro si si si diggante boobu noonu le président Macky Sall en personne moom moo dox génn 6 heures du su fekkee mën ngeen ma ko permettre. wala fajri mu ngi ko titré le président 6 heures du la yeewu dem Touba gis nañ Sidi Mokhtar jóge fa dem Tivaouane. ñëw ne carrément damay bàyyi Karim mais du que mënu moo di gouverner si biir réew mi le président Karim Wade di nekk biir a génne réew mi di nga génn. man waaw. da ngay dem mën na ko. moom mooy pouvoir mën na wax da ngay toog rek. damay dem ne ko génne ma. dama di dinaa opposé wu mais damay dem. waaw mais mais Karim dafa est xam nga combien de jours lañ bëggoon combien de jours la Karim taxaw si prison pour bañ a génn. bëri na non bu moom da ngay génn moom. non mais négociation yi mu bëggoon pour Karim def ko la accepté wul ko man man dañ ma tëj. mais Karim Karim jamono bii mënu ñibbi si. mais instant bi nii. Euh, xam nga dafa nekk ci ay procédures yoo xam ni moom lay xaar mu épuisé wu ko dafa des ñaari procès yoo xam ni ñaari décision yoo xam ni pour te dire euh, Karim dafa nekk ki nga xam ni moom. Euh, rapidement nag moo gaaw le problème en est que mooy état du Sénégal si boppam le président Macky Sall mais soo xoolee TV5 moom bi mu fa demee lan la wax dafa ni carrément que Karim su fekkee jotaat naa réew bi dinaa ko am amnistier Karim demandé wul amnistie moom hmm. mooy amnistie demandé wul grâce moom mooy gracier ça veut dire que le président Macky Sall moom mooy joué jouam jël na une commission bi nga xam ne carrément suñu alal bi mu utilisé commission rabatoire milliards yi ñu utilisé ak avocats yi hmm. ba léegi taxawul wax sénégalais yi fan la xaalis bi dugg ba léegi taxawul tamit wax sénégalais yi lii la Karim Wade jël ak fii laa ko jëlee hmm. que moom tey moom moo am prérogative ñu war askanu Sénégal bi nga xam ne moom moo leen gëmloon woon ni que Karim Wade jël na lii alors xam ne ay organe de l'État la ak ak ak ak ak des corps de contrôle de l'État ñi taxaw ne que carrément Karim blanchir nañ ko amul lenn li nga xam ne jël na ko si alalu Sénégal je pense que moom waroon na mën a am ngor boobu noonu taxaw ne Karim Wade jëlu alalu Sénégal mu ñun réviser réviser waat procès am mm-hmm. euh, bàyyi ko mu mu dox soxlaam ba pare a nekk ay militant am liggéey. ayca mi ngi noonu Abdoulaye waxtaan bi neex na lool nag euh, mais temps bi moo ñu xoj. Euh, li ñu caloon ci waxtu jeex na xam naa dama lay bàyyi dinañ dinañ gën a eggale ci yeneen yeneen i jotaay incha allah ñu waxtaan ci wàlluma Karim ki yeneen yoo xam ne si nii daanaka euh, mm-hmm. amoon nañu yeneen yi waxtaane ko euh, mais tey xaju fii dama lay bàyyi nga daal di tàggatoo ñu yëkkati jotaay bi waaw d'abord Mahfouz di la jaajëfal bu baax a baax si opportunité bi ñu may ñu waxtaan nag sénégalais yi nekk si réew ak bitim réew Euh, si antenne bi ñuy wax suñu gaal 24. di leen jaajëfal bu baax amul mbégte trop. Mm-hmm. Euh, partagé na génn plateau bi di leen ñaanal yàlla euh, seen projet dem ba nga xam ni ay plateau plateau télévision lay mm-hmm. nekk vraiment di leen jaajëfal. ak euh, mi ngi noonu Abdoulaye Bari la ñu na tey jii ci invité de la rédaction moom nag mu bokk ci euh, parti démocratique sénégalais ñu wax ñu doon waxtaanee tooluwaayu réew mi ak tooluwaayu parti euh, boobu li nga xamante ni daal dinaa koy tudd di leen jaajëfal bi gi moom moo nekkoon ci caméra bi ak technique bi yéen ñi nga xamante ni yéen nekk si biir réew mi ak bitim réew di ñu teewlu fii ci Sunugal 24 di leen jox dig daje lu yàggul dara ak beneen invité jaa